mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam bu mag a mag mag ci réew ah, suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj ah, mu ciy def lu am am solo dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam-xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg jokkoo ak Serigne Yadaly Ndiaye woo ci numéro bi di 77 vingt 122 77 60 wala nga woo. 121 bëgg a dox ci social ci ñi mu ñu am mbokk jullit boo xamante ne ni suñ boroom da koo teg tawat tawat goo xamante ne ni yemul ci moom law na ba ci njabootam waaye bokkuñu ñoom ñaar moom li ko dal ci accident la ko amee waaye doomam am na tawatu jabet goo xamante ne ni wéet na ci ndax ñàkk na ci boroom këram teewul mu ngi muñ ci dëkkuwaayam ak ci taxaw ci fajoom lañuy ñuy loxo yi rek bàyyi ko mu nuyoo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. salaam na ngeen ana waa kër gi. jàmm rek alhamdulilah. dañoo ak yow ci jafe bi ngay dund pour mbokki jullit yi seetaan mën laa taxaw. man may tudd Hassatou waaye Dalifort laa dëkke dama amoon accident am na ñetti atu ay juróom weer ba léegi kaalis des na eh, cinq cinq moo ci des léegi noonu sama doom bi tamit dafa feebar te papan dafa gaañ papan Guinée la nekkoon nu man noom fii lay judd maa ngi sama doom bi fii laa judd léegi noonu dama bëgg nit yi mu jàppale ma mhm. jullikat yi pour mu jàppale ma pour tànk bi ay ordonnance sama doom ay faylal bi boobu dafa seeri maa ngi nekke albere waay mhm. foofu lay nekke am naa fi ñaari weer ay fukk juróom fan mhm. maa ngi fii ba léegi waaye demaa bëgg nit mu jàppale ma pour ordonnance yi ay faju sama tànk bi waaw loolu laa bëgg sax sa ginnaaw bi ñu déggee sa tànk bi nga ne sa tànk bi def naa yow ñetti at yu teg juróomi weer wala juróom benn weer de teg na juróom benn weer de mhm. teg na ñetti at juróom benn weer mhm. weeru bii mooy motu juróom benn yi mhm. waaw parce que médecin bi woo na ma téléphone kero pour ma dem foofu dama naa nee ne ah su ma amee kaalis yi ma ne ko déedéet yoruma ko mu ne léegi ma del sama ker ma toogu ba ma am kaalis bi léegi nag maa ngi indi sama doom bi tamit fii te affaire bi dafa bari affaire bi dafa bari parce que kooku joxu na ma facture yi facture motu na cinq cent bu manqué junni loolu noonu depuis mo bindi boobu tege na tege na kii bi fukka juróom fan tamit mhm. depuis mo bindi boobu parce que di 28 novembre laa ñëw fii mhm. tii bi ñaari weeru deena léegi ñetti moo ci taxaw ni mhm. te tey dafa am kii juróom fukki kii bi juróom fan mooy nekke fii ba léegi amaguma ko may dimbale dama bëggano yëpp mu dimbale ma nit yi yëpp daal mu dimbale ma waaw yoruma dara moo tax maa ngi nekk Dalifort te li ma ko luwee loolu baraaku laa nekke léegi sama bara sama borom baraaku yi tamit mu ngi may sonnal pour luwaasi bi te fu mu ne nii yoruma dara waaye sama doom bi tamit wérul loolu moo tax dema bëgga nit yi jullikat yi mu jàppale ma sa doom ji ordonnance mi lan la. Eh, ordonnance bi bari na de ordonnance yi facture yi ngi fi. Mhm. bari na de ordonnance yi ëpp na 500000. yi sa doom. waaw sama doom pour ordonnance yi faju bi. Mhm. ëpp na yooyu bokkuñu ci lal bi. Mhm. bokkuñu ci lal bi de lal bi kay appartement feere laal bi facture yi mu ngi ci biir. waaye ordonnance yi lu ma ko jëndee facture yi mu ngi nii. ëpp na 500000 de loolu kay xaw ñaata la dafa dafa bari de. léegi sa doom bi lan moo ko dal moom. kooku jabeti la yore ay ay kii bi ay nu mu tuddati ay métti yeexu bi métti mhm. bi yeexu bi dafa am kii bi feebar mhm. dafa am feebar yeex ay ay kii bi ay fee kii bi déedéet du dérépano de yorowul dérépano di bi fii moo koy metti wàcc si tànka bi ay kii bi ay jabet yi gisoo botu bi mhm. fale laa koy newi li ma ko indee fii boobu newagoo waa depuis ma dugg urgence réelle botu bi foofu la waa léegi noonu ubbeegoo waaw ginnaaw bu ñu la déggee ci say kàddu yow ku la dimbali ci sa tànk waaye sa doom ñor na na lool lool lool lal bi sa doom di nekk seer na mais ordonnance sa doom yi nan nga koy dundee pour nga jënd ko bu buñ la ko joxee donte bu la buñ la ko waxee nga fàtte sa bopp. dara de yoruma dara su ma fu mu nekk nii daal yoruma ku may jënd ordonnance kanaa su ma defee yelewaan yenewaan laa def nit yi boo ñëwee pour indi xale yi ma génn ci biti ma defu yelewaani su ma amee ma jënd su ma amul ma toogu fu mu ne nii xaw ma ñaata la daal dafa bari dafa bari de demaa bu ganoon nit yi mu jàppale ma dafa bari de ginnaaw bi ñu déggee loolu nga wax euh, mel na ni ñi lay seetaan dinañ ko suivre bu baax a baax tey ku la bëggoon dimbali ci ban numéro téléphone la lay jotee ma numéro téléphone bi 77 627 04 10 boobu mooy sama numéro bi. waaw sama téléphone bi la numéro sama numéro bi mooy mooy mooy yooyu mooy numéro boobu 77 627 04 10 boobu mooy sama numéro bi. waaye borom kii bi sama téléphone bi amul Orange Money. am naa noonu kuy yore Orange Money waaye numéro bi mënuma koo dédde kanaa ma ma ko ngeen gis. waaw. non da ngay joxe numéro bi nga xam ku woote yow mi muy dimbali lay jot ba bu la woowee mu xam nu muy def ba nga jot ci xaalis bi moo xam dala koy yónnee transfert wala mu yónnee la ko n'est-ce pas yaa ngi pièce d'identité wala pièce bu mën a récupérer xaalis yoruma de man sama identité mu ngi principal moo tax ubbeeguma Orange Money sama kuy kuy ah docteur yi moo ko mooy xaw ma ko ko tey de parce que affaire bi yàgg na parce que ñetti at nii ba léegi ba ma ma damm rek chauffeur pompier yóbbu ma foofu nee na il faut ma indi carte d'identité balaa may dugg depuis ma yóbbu ko yooyu ba léegi sama kar d'identité yi jógu ko ma ko. amoo ci pour jot say médecin bi lay suivre wala ki wax ni boo indee 500000 mu dindi feeri sa tànk kooku waxula ci sa carte parce que tamit sa carte defe naa ni moom la fa garanti. ah sama carte d'identité mu ngi principal loolu laa xam xaw ma nu ko ko yoree de waaye mu ngi principal waaw médecin bi moo koy yore. ginnaaw bi daal mooy da ngay waxaat sa numéro téléphone ak taxaw sa doom bi donte yéen ñaar ñëpp suñu borom teg na leen nattuwaay yow bu sa doom buñ la ko waxee da ngay fàtte sa bopp tey sa doom. kaalis laa xam ñaata la waaye bi. kooku bind na ma kii facture yi mu ngi ci kii bi ci saal bi facture yi gis naa ko 500000 bu manqué 5000. loon pour kii pour sama doom bi man sama sama bosu bi 500000 la sama bosu bi léegi noonu bosu kii xaw ma ñaata la parce que kooku bind na keroo 500 1000 bu manqué 5000 léegi noonu depuis mo bind yow teg naa 2 semaines xam nga loolu bari na. xaw léegi ñaata la parce que dégg naa lal bi xaw ma par jour di 10 la xaw ma ñaata la waaw. xam naa ne noonu dafa bari. waaw sama yaay dégg nañ bu baax li nga wax sa tànk bi depuis kañ nga commencé di yëg méttit bi ba ñu war a dindi feer yi wala feer yi nii mu ci nekkee déranger wu la. mu ngi may déranger ga su ma jëlee garabu yi. Mhm. moo tànn bara garabu yi ba jeexee dafa mu ngi métti pour garab seddaay rek moo koy tànna boo jeexee noonu xawma lu may def parce que mu ngi may métti mhm. te fu mu ne nii saa yoruma lu may jënd kii bi parce que garabu yi jeex na mhm. garabu yi jeex na. ñan nga xalaat pour woo leen ci Sénégal pour ñu taxaw la. kana sama mbokku Sénégal yi pour ma dimbale ma rek lool laa xam parce que fu mu ne nii yoruma dara yoruma néegi dama luwe te borom néegi bi tamit mu ngi may sonal te baraaku laa nekk dali fooru ci marché bi ci weetu jàkka alhaji yaaya foofu laa dëkke borom borom sama dëkk bi Jeenabu Sumbulu laa tudd waaye Jeenabu Sumbulu dafa gaañ waaye doomam bi mooy nekk fii doomam bi mu ngi tudd Adama Jaawara déggoo ma Waly Seck ah waaw dégg naa Waly Seck mu ngi jàppale bu bari kuru amul dara léegi noonu de maa bëgg a Waly Seck mu jàppale ma man may tudd Hassatu Balde maa ngi nekk Dalifort woma buggee jàppale walla walla kumpe sama numéro bi sama numéro bi 77 627 04 10 man noon yoruma Orange Money de am naa noon sama mbokk ku yore Orange Money kooku suma ko joxee mënuma noon dat kii bi waxu pour numéro bi maa ngi yore numéro bi noon waaye suma ko fekkente ne dafa am ku koy laaji mun naa koy composé waaye mënuma koo dit de waaye numéro bi mu ngi fii noon bi sama doom bi Aïssatou waaw. waaw ah, mbokk yi ñuy suivre ci Sénégal Buzz 221 defe naa ni am nañ ci yéen yaakaar ñu tàmbalee ko fi suñu kàddu départ ñëw ci ñii ba fi mu toll ñu ngi fay tàllal loxo ak képp ki nga xamante ne ni mun na koo taxaw dimbalil ñu ko te yàlla tax donte ñaan metti na lool. donte joxe dañ na moo gën a métti waaye ñaanit métti na lool ku amoon pexe mbaa sago mbaa ngay may sa bopp defe naa ni doo tàllal kenn waaye defe naa ni jullit jullit rek ay mbokkam ni mu dundee taxawoo. tànk bu ñu def ay feer ñetti at yu teg juróom benn weer daanaka métti na ndax kenn ku nekk na nga xam bu la pousse jamono rek dana métti lool ñu gisit ci doomam ki nga xamante ne ni yaakaar naa ni dañ na xale moomin la kon nag ñu ngi tàllaat loxo ñëpp Maria Sine sa biige dégg nañu it moom mu wax sa tur ci li ngay def ñu ngi la koy ñaan ci boo déggee suñuy kàddu yaakaar bi mu am ci yow ak keneen ku dul yow bu ko déggee mun cee taxaw waaye man Galaye Talibé Bamba dama naan maa ngi ciy woo ñu mel ni Pape Mama Fall Abbas Masseer Fall Mouahibou ca Défoncé maa ngi leen di tàllal loxo te xam ne yaakaar naa leen Moustapha Niang maa ngi leen di tàllaat loxo ci ndimbal bi numéro am dinañ ko def ci écran bi noonu ngeen di ko gis ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom dégg kàddu yi te saafaral ñu ko ci barke Seydina Mohamed jërëjëf yaay booy mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg jeex ci réew mi gannaaw bu problème nag ab solution la ñuy wër solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye daan di borom xam bu mag a a mag ci réew suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj ah, mu ciy def lu am am am dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ah, ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ci def lu am solo suñu borom dénk ko ci àpp xam-xam damay door ak moom euh, feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj euh, lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba Ndamatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 euh, yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak a Yadaali Ndiaye euh, woo ko ci numéro bi di 77 122 77 60 wala nga